tey nga ñëwaat ni commune yooyu tey lañ lay wax nga gérer ko tey bu koy gérer ci ban budget la koy gérer bu ñëpp defoon gëm sa bopp comme moom ni muy doxalee ni muy doxalee ci commune yi kon foog naa commune du am budget kon foog naa commune yi dootuñu fi nekk sax ba tey ñuy xalaat naan élection ba ñu xam ni xalaat ni war nañ ci mën a bokk. kon accusation yi ngay ñi nga ne moo jiite ba gëm sa bopp est-ce am nga ci ay preuve ni du fay taxe. benn ku bokk ci gëm sa bopp sax waxuñu ko jox collectivité locale dama li li ma wax man bu man maa ko wax dama ne Bougane Gueye Dany implanté na ay pano yu dul jeex ci ay commune te fayul ay taxe bëri na commune yoo xam te ni daf leen amal tax bu mu demee ba xam ne mi ngi dem ci élection yi nag mu dal di changé génnee ci boppam ci entreprise dugal ko ci ñeneen xam nañ système bi xam nañ ni mu demee xam nañ commune yi mu amee taxe man maa ko wax fii déclaré ko ni waroon na rusa taxaw di wax lu jëm ci collectivité teritorial

221, une autre vision de la télé.